mu mel ni li fi am tey dañu ci doon wane rekk liggéey bi nga xam ni moo am ci biir daairatul mustarshidin wal mustarshidaat mu di liggéey bu nga xam ni ñoom ci niveau Mourchid TV top nañ ko domaine par domaine top ko it ci li nga xamni mo tax nit ñi di son ndax sunu borom ci suratul rahman dafa am aya bu mu tuddu marajal bahrain yel baynahuma barzaxun la yabgiyaan yàlla tudd li ñoo tudde mu nekk une eau salée et agitée mu du li wa wax mu nekk une eau douce et calme Yalla ni nak ma fexé ba def ci sen diggante lutax duñu du wonté ñu laaj nak lutax tax nanguwul ñu mélanger mu ni nak ñom ñaar ku ci ne da nga am sa écosystème boo xam ni ni mu mën a dunde ci yow mënu ko dunde ci bi ci des écosystème bi ci fleuve bi mënul dund ci géej mais écosystème bi ci géej mënul dund aussi ci biir fleuve bi moo tax mu def séparation bi ci seen diggante mais ñun buñ ko bëggee interpréter ci tey sunu jamono dañuy jàpp ni au Salébi et agité mooy tendance te tendance yi moom itam dafa am écosystème Vous bu fekkee ni au douce bi et calme la ñu jàpp ni mooy valeur yi te kon valeur yi am écosystème Wa. ba na kon benn la dunde buñ ko dañ koy perdre mu mel ni kon seen programme bi ngeen tëral tudde ko VAVA vacances et valeurs domaine yi fi jib yépp ci ay culture générale ak ci wàllu religion ci wàllu histoire ci wàllu sketch yëpp bu ci nekk def di secteur bu nga xam ne war nañ ko jox yeneeni valeur pour muy contribuer continuellement ci dundu nit ñi fii ci Sénégal ba tax na kon nag fa tabaarakallaahu li ngeen ci def ah mérité ngène ñaar ngène am motion mais mérité ngène ci ñun ñu am émotion parce que liguey bi yombul c'est vraiment bu fekké ni petitesse des moyens amna Maintenant, voici y grandeur du dessin Amna.